ahlan bikum ay fan yu néew moo dox suñu ubbi te l'école bi waaye liy ñuul ci soow mi mooy école Sénégal yi ndax elew yi dinañ ci mën a jàng fa bëri si ñoom école yoo xam ne inondation ndox mi fa ko nangu ak yeneen i jafe-jafe ba tax si du quotidien ne nguuru Sénégal ngir saafara jafe-jafe yooyu nag bañ mën a jàng ci jàmm ak salaam moo tax fa ñoo xamal conseil interministériel ni ki démb fañ faa jël nag fukki dogal ak juróom-ñett ngir école mën a tijji élèves mën a jàngi gàttal njiiti jëwri ni Amadou Ba fa wax na njiitiram Macky Sall li bëgg mooy ubbite école gi bañ a am benn gàllankoor élèves yëpp mën a dem jàngi ñu bañ a beddi benn élève ci la solo yéen a kaay yéen a kaay bi ne waaye gàllankoor bi nga xam ne nag moo taxaw ñu war koo lijjanti daar daar ngir école mën a tijji mooy wàllu inondation yi école yi nga xam ne ndox ma fa koo nangu ak jàngalekat yi nga xam ne fa ñoo manqué école yu bëri amuñ ay jàngalekat les a kaay ne a kaay na ko bu ko rafetal li xew ci école yi fa raglu turbine yéen a kaay na xolu Sénégal yi fi mu toll ni gàcce la yaaw fa ngay xool ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñetti école inondation ndox mi fa leen a nangu enquête yéen a kaay dëggal ko na ko faala ci yokkal juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom ci ay école xamuñu courant ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay école xamuñu gaanuwaay douche ngir xale yi léeg su ko yéen a kaay na ko yow faala ci yokkal xam na loo bàyyi ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñetti école ci réew mi ñu ngi ci biir ndox mi mbënd ma bokk na ci école yooya ñaar téeméer ak fanweer ak juróom yoo xam ne ci école élémentaire bi ci collège la ñaar fukk ak ñeent ci lycée yi la te jeexagut de juróomi téeméeri école ak fukk ak ñett amuñ ay mur clôture maanaam ci ndend foy foy gi fa la ñuy jàngee ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaari école ci Sénégal amuñ ndox muñ naan source a na Cheikh Oumar Anne nag jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàng mi njàngale mi bu suufe bi ak bu digg doomu bi fa xool tolluwaay école yi GP yi ne kaay ne kilifa yi nag fa ñoo jël fukki dogal ak juróom-ñett ngir tey jàng tey l'observateur ne ko fukki point ak yooyu man faa ne moo a sowe école Sénégal yi info yi ne kaay ne fa ñoo a jafe-jafey neen lay leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne njiitëram Macky Sall fa napp fa xupp fa dànkaafu bun Abdallah Jonn Mame Boye jaawo ak képp koo xam ne fa ngaa taxaw bañ na doo ànd ak Amadou Ba aw sa yoonu bopp Vox Populi moo ñu ko xamal yaaw seetal njiitëram Macky Sall fa wax ne képp koo xam ne fa ngaa bañ àndoo ci sama tànn gi ma tànn Amadou Ba candidat benn bokk yaakaar jàppal na yow génnee naa la dàq ca biti bokkatoo APR benn bokk yaakaar léeg a kaay waa APR yi nga xam ne fa ñoo bañ a ànd ak Amadou Ba te faa leen di xamal leen gis nga bu ngeen dof dofloo ba ñun waa APR ak benn bokk yaakaar ñu ñàkk nguur gii da ngeen ko réccu de ndax lu garaaw lay nekk si ñun ñëpp nag laa si yéen kàddu yi ni mel nag ma ngi ko waxee ca Amérique ku bañ a ñëw nag loo ci góobee rek fa koy gar l'évidence yéen mel ni ko daan ko hée njiit réew Macky Sall faa la yootal leen Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille ak Mame ñett ña ngay waxtaan ngir ànd nekk benn 2024 te gis nga loolu boo seetaanee ba mu xam du baax ci a fori new regard ànd diggante ñi nga xam ne fa ñoo fippu Aly Ngouille Ndiaye ak Boun Dionne ak ñeneen ñi ni mel gaa koy ruumandaat ñu ngi ci waxtaan de te su loolu amee du baax ci Amadou Ba leneen lu baaxul ci Amadou Ba mooy fa tële lajj moo gouvernement bi Pape Djibril Fall moo ko wax ci tribune yéen kaay fa attaqué yekk Amadou Ba ak gouvernement bi kàddu yoo xam ne weñ wu ci dal dee yaaw seetal fa sàkku sax ci Amadou Ba mu tekki ndobbal tànkam te ñu falaat beneen jëwriñ ju ñu dénk wàllu ma ngi ko waxee ci les si ko yéen du dundee tolluwaayu politique réew mi mbënd mi loolu lépp moom Pape Djibril Fall ko saafara te mooy laaj réew mi ñu fal ko président wala fajir yéen na man daal faa xamut fi mu toll nii ku jóg rek ne candidat laa faay laaj réew mi léeg-léeg fa ci gis ñoo xam ne tojuñ fenn élection chef de quartier sax mënuñ koo gagné waxuma laak réewum Sénégal waaye gars bët bu set candidat bu bees ana lan waral loolu docteur Abdou Khadre Sanokho na ko faa lay tontu fa xam mbaqus gu nekk ci biir bi tappale naxaateeg yeneen yi ni mel Dakar te Babacar Ngom ak ñeneen ñi ni mel laas yéen a kaay fa ñoo xamal na PDS moom fa ñoo xam problème <laughs> yaaw fa ngay xool libéraux yi fa ñoo dem fees taxaw ca seen permanence ba lépp ngir naqarlu député bi ñuy wax Saliou Dieng fa ñoo wax ne moom Amadou Ba lay liggéeyal indépendant yéen kaay ne PDS fi mu nii ña ngay yeesal seen bànqaase ci seen biir donte ba léegi gisaguñ seen candidat bi di Karim Wade fañ koy xaar de libération moom fañoo ñoo xamal ne waa wéef yi fa ñuy sàkku ci poste finance ñu fay leen lu ëpp ñaari milliards ci bor buñ leen yoral ba fañ leen yóbbu ci yoon ñu ñu nar a ci yoon mooy fukki doomu aadama ñett yoo xam ne fañ leen teg loxo ci ko bitim réew andi ko

amuñ ak góor ñi nga xam ne fa ñoo xam jabar te ñoom it xamuñ doom ñaaral fitna ak li leen seen mbokk di wax fa leen di jural ñuy def lu mel ni li mama kundul defoon yaaw seetal benn soxna fa nettali ne fukkaat ak juróom ñetti ci ginnaaw sama xarit fa maa sàccoon sama doom nen na tuuti te ba léegi maa ngi ni mënumaa xam doom benn rek laa xamoon fa ko sàcc keneen ci yéene kaay bi fa wax ne man su fekkonte ne doom fay jaay marché danaa génnee ay millions ngir dem jëndi ko ndax maa ngi ni am naa xalal duna gàññi waaye xawma doom ab soxna ci yéene bi ne man faa sëy yu bëri xawma doom léegi nag faa dem ci sëriñu naxe mooy ñuy wax naan maa mën yi rek faay faj jigéen ju taxaw ak faay faj ku mënta am doom mu ne ñooñu faa leen jox sama xalal ak samay takkaay ba ma jeexal takk te ba léegi xaw ma doom fañ ma doon nax di lekk sama xalal rek yéene kaay bi ne li ci yéeme nag si jamono jooju am na benn soxna moom fa wax ne moom bëggututa am doom ndax li mu xam ci ay doom fa bëri ba jéggi dayo te xamu leen di def imaam Puy nekk ITV nee na faa leen di fàttali ne soxna Aïcha moom la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa a bëgg ci ay soxnaam te mi am doom hmm, waa doom xalalu yàlla la moo koy may ku ko neex waaye ñàkk mën a am tamit nattu la bu yàlla di teg jaam bu ko neex moo xam ngay góor moo xam ngay jigéen su la yàlla tegee nattu bi muñ ko ci anam gu rafet donte lu metti la ah moo tax yow mi yàlla sa gël njaboot doom bul rey bul sànni fa ko war a toppatoo yar ko te xam ne du sa njàmbaar moo tax nga xam doom déedéet yàlla la abonné leen ci suñu xibaar yu wér ci réew mi ak ci bitim réew